Euh, tey nag euh, ñu indi leen la nga xam ne rek euh, def na deux ans tey yàgg na ndax nag mi ngi nekk deewum Dieynaba Traoré Dieynaba Traoré mi nga xam ne rek moom la ñu buumoon daal di koy sànni Tivaouane pël ca fa nga xam ne rek mooy filao yi boobaak léegi nag enquête bi nekk en cours amaguñ ci dara lu leer famem tey di ko rendre hommage waaye tamit di laajaat fan la yëf yi di mujj ndax ba tey xamaguñu yëf yi fu mu tollu ci li nga xam ne rek mooy enquête bi ba tax ñu dalal ay mbokkam tey nag ñu ngi fii ci parcelle unité 21 ñu bàyyi leen rek ñu daal di nuyoo euh, laataa ñu ñëw ak témoignage yi ci naka la dundee woon ban genre nit la woon mais affaire yi bu mu amee naka lañ ko dundee ñoom sa famille euh, kon nag ñu dalal rek benn frère am ma bàyyi ko mu nuyoo tur beeg sant bi. salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. maa leen nuyu seen tur ak seen sant yooyu ñëpp. di leen ni massa coona mhm. di ne maa ngi tudd Moussa Sanogo mhm. dëkk Parcelles Assainies unité 21 nekk si cousin deret si jéene ba Traoré ñu koy woowee Tene mhm. waaw Euh, nekk cousin direct ci jay na ba Traoré ñu koy woowee Ténin euh, dañuy dem def li nga xam ne rek mooy rappel des faits daal del soit léegi ci waxtaan bi laataa ñoo woy ak ki nga xam ne rek mooy Moussa ci li nga xam ne mooy waxtaan bi léegi léegi lay doon sur la 7 bi ci seen émission 7 voix du cœur Dieynaba Traoré ñu gën ko xam ci Ténin mu ngi gane si àddina fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier atub 1998 doom la ci Seydou Traoré ak Mariam Traoré moom nag mu ngi passé xaleem yépp ca Parcelles Assainies unité 21 foofee nga xam ne it fala la jàngee école Fabienne Sagna ca Parcelles Assainies unité 22 fa la nekk ba classe cm mu dal di bàyyi jàng ngir nag amal ab tàggatu ci wàllu ñaw mu dal di liggéey lu ni mel ba am fukki at ak juróom-ñett ñu ngi ko may borom kër benn fan ci weeru janvier atu 2015 mu dal sa essayer ku ñuy duppee Pape Maxa ñu dal di am sax benn tout tànk bu góor benn fan ci weeru janvier atu 2016 jamono ji tey am na juróom-ñaari at Jaynaba moom yi nag dal di dakkal liggéeyam ngir nag jàppale frère am di cousin wam Moussa Sanogo ci entreprise am bi nga xam ni wàllu transit lay yëngu foofee mu nekk fa secrétaire ci ay weer laata boobule entreprise di nermerlu mu dal di bàyyi nag boobu liggéey secrétariat dal di delluwaat ci business am di jaay ay produits de beauté waaye tamit di amal tàggatu ci wàllu maquillage tekkiwee pose xef ca marché Dior bi mu paree eh, formation nag moom Dieynaba dal di ubbi nag boutique am di fa jaay ay produits de beauté ak ay mbirum yére ca marché bu Dior moom ba Traoré boobee nag mu ngi tàggoog boroom këram ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre atum 2019 ci ginnaaw gi lañu koy faat ñetti fan ci weeru juin atum 2021. jërëjëf euh, Moussa euh, yëf yi mi ngi amoon le 3 juin 2021 ginnaaw bi mu réeree. ci ñetti fan gisuñu ko moom jay na Dieynaba Traoré ñu gën ko xam ci tene ndax nag boo leen déggee tene xam ne mooy bàjjen ci bàmbara mu nekkoon surnom bu affectueuse boo xam ne famem daan nañ ko ko wooyee euh, ñu toog toog toog trois jours gisuñu ko ci diggante wër gis kook ñàkk koo gis ñu jot koo gis fële ci fi nga xam ne rek mooy filaawo ya ci waawoon pël waaye bañ koy gis boobu fekk nañ ñu boom ko boom bu ñaaw musaa tey jii ci loolu laa lay bàyyi rek nga àddu laata gi nuyoo nit ñi ba pare euh, pour wax ñu naka la loolu demee ak naka ngeen ko dundee bi mu amee. waaw comme ni ko waxee rek maa ngi nuyu ku nekk encore. Mm-hmm. di comme yàlla nu mu ko waxee rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bakken bu mos dund di nga mos dee. Mm-hmm. tey wala mu nekk suba. kon ñun première chose bu ñuy def rek du ñuy nangu lu yàlla def. Mhm. moom mi nga xam ne mooy suñu borom xëy moom la neex. Mhm. mu demee nii su ko tamit du nii. dëgg la kon ñuy jël lépp ñu teg ko ci loxo borom bi. Mhm. ginnaaw loolu comme sama sœur yi nuñ ko waxee ak sama frère yi. Dieynaba Traoré nekk rakk ci man. nekk ku jege si man tamit parce que jaar nañ fu bëri bokk nañu société yóbbu naa ko sama société ay des années mu nekk sama secrétaire direct balaa nit dugg sama bureau moom ngay njëkk gisante kon am na fu bëri bi nga xam ne jaar nañ ko même su nekkul affaire diggante frère ak sœur bon comme niñ ko waxee ba mu réeree dimanche si guddi boobu man teelu ko yëg parce que man dama occupé woon trop période boobu au niveau du port parfois dama doon wàcc vingt trois heures vingt deux heures. Mhm. laataa ñoo ñëw ci fee yi. ak mhm. naka la demee ak naka ngeen ko dundee lan nga ñu mun a wax ci euh, la défense muy na Dieynaba Camara. bon suñu sœur bi ma wax la nit la nit bi nga xam ne dafa gëm boppam nit la nit bi nga xam ne def dafa nangoo liggéey. parce que je me rappelle avant ma koy yóbbu euh, pour mu liggéey port sax jëkkëram mi nga xam ne moo ngi dama waxtaan ak moom parce que moom ngi woon si bu mu sëy mi nekk sama xarit te suñu milieu bi ñëpp xam nañ nu mu fa demee affaire u alal la affaire u douane la léegi yàlla ba mu defee bu ñu waxtaan ba ma ko yóbbu sama bureau macha allah nekk na nit boo xam ne dafa yàgg bañ matin ba soir ñooy nekk si liggéey bi ba yàlla ñoo def avant moo jaay produit am yooyu ñuy wax liggéey bii la doon def ba mu paree jaay eh, ba mu jógee port yàlla ñëw def benn instant sama entreprise mu tëj entreprise ba mu tëjee ma dem beneen entreprise ma ne ko na na toogagum kër ga parce que actuellement liggéey bi dafa jaxasoo loolu ba mu amee nag mu commencé jaay diw comme jëkkëram nu mu ko waxee malgré que tout saa yu may dem port dina ma jox ay powam man mii nee ma Moussa soo demee joxal ma lii abi joxal ma diw joxal ma diw parce que dafa doon dugal marchandise am statut mhm. relation bu mu amoon port ñoom ñoo doon gis marchandise am di ko jënd mhm. man la koy jox maa koy yóbbu mhm. après gars jox ma xaalis parfois sax gars bi may fay xaalisam ma woo ko ma ne ko fils lekk naa sa xaalis après naa la remboursé mu ne ma coow coolu kon kooku nekkoon na jigéen bi nga xam ne liggéeykat la woon nekk ñafekat gëm boppam. Mhm. ba mujjee am benn magasin moom bi nga xam ne moo ngi koy liggéey fii marché Dior. comme jëkkëram nu mu ko waxee di def ay diwam macha allah moom yàlla na ko yàlla xareel àjjana rek loolu rek lañ mun a wax sunoo moom. Mm. jigéen bu mun góor la woon. waaw euh, mu nekkoon euh, jàmbar euh, ba tax na rek ma bàyyi la nga wax ñu ci. bés boobu naka la deme ak euh, bës yi ko précédé mooy bi muy réer. waaw effectivement li nga wax dëgg la man bu muy réer man lundi laa ko yëg parce que sama sœur ami moo ma woo après lundi fekk maa ngi port mu ne ma ah Moussa gars yi nee nañ te dafa réer depuis démb ñoo ngi koy woo portable am jàllul ma ne loolu daa mun a nekk automatiquement man tam ma composé numéro am jàllul ma jot boîte vocale fekk lundi boobu ba may xëy. dégg naa journal ñu revue de presse ne am na tubaab bu ñu rey sànni ko tubaabam pël parce que man chaque matin avant maa liggéey damay déglu journal ba pare sóora liggéey mais sama xel parce que tubaab lañ wax mais suñ ko xoolee nii da ngay foog ne tubaab la parce que dafa xeesoon pecc macha allah te naturel su dul dara dafa xeesoon waaw léegi nag loolu ba mu amee man ma liggéey sama mag bi woo ma ne ah jeena ba réer na depuis démb ñu ngi koy woo jotuñu ko ma ne ko jéena ba réer tene réer ma ne ko mënul nekk rek essaye tene voyagé wul parce que day tàmm dem Mali wala ay Côte d'Ivoire di indi ay marchandises léegi di dem ma ne ko essaye jéenul te waxu ko kenn sama mag bi ne a ah, affaire bi loose na ma ne ko a ah, yàlla baax na léegi mardi mercredi comme gars yi ni ñu ko waxee man dama jour dama guddee dama ñëw kër ga dégg bruit mm-hmm. automatiquement ba nii may wax ak yow nii man mënu ma ko gëm parce loolu bu mu amee jeudi matin la ñuy xëy mën a ak sama yenn frères yi automatiquement ñu dem Dantec ma bàyyi sama liggéey yëpp. Pape Makham mooy. jëkkëram euh, ex jëkkëram waaw kay ko euh, ndax nag euh, ñoom ñaar ñi ngi woon en 2015. waaw en 2019 ñu divorcé ah. waaw kon nag ñu dem seetaani ko ci témoignage ñu divorcé mais mu nekkoon xaritam. Mhm. ba tax na sax ci vendredi bi nga xam ne rek mooy semaine bi mu décédé ñoom ñaar gisante nañu waxtaan nañu ñu amoon benn affinité boo xam ne bu bu bu yaatu la kon nag ñu dem déglu ko ci témoignage daal de soit léegi ci waxtaan bi. ma nekkoon euh, ex jëkkëram mm-hmm. ah euh, ñu sëy depuis 2015 mm-hmm. euh, ñu divorcé en 2019 mm-hmm. jëkkëram laa woon quoi ba pare xaritam laa woon aussi parce que avant mariage bi aussi avant mariage bi ànd la woon quoi ah méttit lu rek comme toute personne ah méttit lu ba pare am benn genre rancœur quoi da am leen genre naqaru xol loo xamante ni tu es dans le depuis bu mu amee ba léegi bon amoo ci benn nouvelle parce que tey ëllëg kenn xamul parce que kii nga xam ne di suñu doom mën na jug un bon jour ak laaj ma nu yaayam génne àdduna parce que xam na ni yaayam nekkatu fi c'est vrai parce que chaque vendredi dañuy ànd ziar ziar ji ko quoi des fois suñu amulee temps vendredi ñu def ko dimanche mm-hmm. mais ëllëg dina ñëw dina ma laaj lu tax quoi te lu tax boobu tey di j'aimerais bien avoir une réponse boo xam ne dinaa ko mën a teg ci loxoom mm-hmm. parce que toute personne c'est droit am la quoi mu xam gise nañ le vendredi ah ñu gisee ñu waxtaan si buntu kër gi mm-hmm. hmm. parce que suñ kër yi ñoo def face ñu toog waxtaan ñu taxaw nii ci buñ kër ñu waxtaan yàgg ay quinze vingt minutes après mu ne maa ngi yóbbu Amadou ma ne ko d'accord amul problème mun ma amaana sax du fanaan parce que dama war a génn samedi ak dimanche xam naa du fanaan dama koy indiwaat mais finalement gisuma Amadou samedi gisuma ko ci vendredi bi mu euh, samedi bi tamit gisuma ko comme que moom ci yaayam bon xayrun bon parce tamit aussi yaayam la parce man maa nekk ak moom chaque jour mais moom en général tous les week-ends day ñëw jël si doomam parce que ci lay gën a am temps libre waaw ma yëg ko le dimanche ñu waxtaan téléphone parce que le vendredi dafa ma doon wax ne que dafa bëggoon ay autorisation de construire parce que man maa ngi yëngatu ci loolu ma ne ko amul problème saa yoo ci paree rek incha allah ñu ñu dox ko léegi bu mu ñëwee ne ma bu mu ñëwee ne ma waaw bon man affaire bi c'est sérieux quoi pour autorisation bi pour autorisation bi c'est sérieux ma ne ko d'accord amul problème bon ñoo ngi déggante vers dix-huit heures téléphone parce que moom xam na man tamit ci lu may yëngu xamoon na ci lu may yëngu moo tax mu demandé ma woon boobu ma ne ko pour autorisation de conseil pour yow de quatre cent cinquante mille la xam nga di ko tooñ ma ne ko après nag le dimanche mu woo mu ne ma c'est sérieux ma ne ko non non yow moom soo ñëwee incha allah ñu ñu gérer ko amul problème depuis on n'a de nouvelles euh, le lundi man le mardi laa ko yëg le mardi laa ko yëg sama benn copain bu nekk Espagne euh, Espagne moo ma ko wax mun ma yow Dieyna ma dafa réer paraît-il ma réer looy wax nii yow yaa ngi ba Espagne bëgg maa wax man lu xew Sénégal mun ma dama kaa gis ci réseaux sociaux yi ma ne ko non c'est impossible peut-être euh, que voyagé wu wala boog mu nekk fake news ak yooyu noonu quoi xam nga wala est-ce que jaawul ko tamit parce que c'est une femme boo xam ne dafa nekk dans le dans le milieu quoi dans le milieu du business et tout ça man est-ce que juumuloo mun ma noonoo après ci laa woo benn frère am Tayiru fekk ma woo grand frère am ba pare mu nekk en communication ma woo Tayiru boobu nag maa ngi énervé quoi ma ne waaw taru yéen dana dafay réer dimanche ba léegi yéen doo leen joxe nouvelle affaire yooyu noonu mënuma pamaxa man de nii laa ci toll ma woo grand frère am après ci la ma rappelé mu wax ma ko ma ne ko yéen jéena ma day réer bu ba léegi doo leen wax mu ne noono non ce que est-ce que réer na parce que man dem naa kiiwam euh, studio am gisuma ko fa quoi gisuma mu yóbbu chargeur gisuma mu yóbbu dara quoi est-ce ma ne ko non man loolu ça m'intrigue quoi jéenam du dem te tàggul bàjjanam mhm. parce que ginnaaw yaayam bu mu làkkoo bàjjanam moo nekkoon yaayam moo ko daan defal lépp te saa fa saa yu dem da koy tàggu mhm. léegi mun ma ñëw ma ma ñëw affaire bi trouble ma daal affaire bi trouble ma le mercredi vers vingt heures comme ni ko Koro waxee vers vingt heures vingt une ñuy doog am nouvelle boobu nag mu metti mhm. parce que grand frère am moo demoon ba Tivaouane Peulh fekk ñu ne gisoon nañ benn tubaab bu réer et tout ça buñ tubaab bu ñu rey foofu et tout ça pour mu ñëw ñu ne kon ko tubaab la te jéena ma dafa xees te dañu wax tubaab dafa am tatouage ci loxo bi benn sorte de papillon xam nga suñ xel ñaaw quoi les grands frères man maa ngi woon service grand frère am dem identifier ko bon bu mu ko identifier bon malheureusement bon mu nekk moom parce que benn mettit la boo xamante ni dafa nekk suñu xol boo xam ne mënuñu ko sax wax mënuñu ko sax wax peut-être même pour jëfe ko nii sax duñu xam mii mm-hmm. ñëpp ah parce que c'est c'est une boo xamante ni comme nu ko grand waxee suñu une sociale donc métit parce que lii di social lii di euh, lii di bëgg mbokk bëgg nit moo ngi woon ci moom jàmbaar <coughs> elle a débuté avec euh, vingt cinq mille francs yoo xamante maa ko ko joxoon sama poche mu ne paa ma man daal boobu ñoo ngi sëy elle était femme foyer demul fenn xamul kenn dem jug na kër ga ñëw na ci kër gi dem na ci alentour yi ak benn copine bu nekk fii juste sa vie tournait autour de quatre maisons cinq maison mu ne ma man toog bi dama ci sonn il faut ma am lu lu mu bon bon lu mu la jàppale il a débuté avec cinq mille francs lu ma ko mës a fàtte maa wàcc mënuma dix mille rek dinaa ci commencé lu bari ma yëkkati cinq mille moo nekkoon sama poche ma jox ko mu dem Padois maa ngi doo ko gis ci boobu laa doog a gis nit kiy jaay ay saabu ci ay jigéen di defar saabu affaire yooyu noonu mu dem jëndi saabu ay façon saabu yu bëri ay lem ay affaire yooyu noonu defar mélange mooy mélange saabu yu gars yi di defar mu defar ko saabu bi daanul woon def trois jours mu defar mu sumbaat beneen siwo mm-hmm. en une semaine elle a réussi à avoir duma ko mos a fàtte cent cinquante mille mu ñëw mu ne ma cent cinquante mille yaa ngi nii ci sa barke ma ne ko sama barke waaye ci sa jàmbaar parce que yaa ko ñax mënuma léegi nag nu ñuy def ma ne ko jëlal lépp soxlawuma sa dara bu ñu commencé ci loolu du ma ko fàtte mu tabaski wala korité dee def ay onglerie ay pause affaire yooyu noonu li may jël benn fauteuil de trois places bu nekk kër ga génnee ko ci biti fii ci buntu kër gi génneel ko làmp pour mu koy niital fa lay liggéey ba sept du matin mm-hmm. sept ak tabaski ak korité nu mu méttee après nga nekk ci maison familiale bëtam du xef du mën nit koo xamante ni du mësul wax ni que sonn naa teg naa ko bët ci morgue bi bu ma ko gisee aw moon xolu jooy parce que kooku tëdd ñu congelé ko ñu def autopsie ci moom ngay gis cause blessure yu ma jot am ci yaramam bët bëtam di xoole nga xam ne kii nu mu demee nii metti woon na trop trop trop trop ci moom waaye xeex na xeex naag koo xamante ni moo ko doon defar lu bon loolu te kooku noon def loolu soxlawul woon dara ci moom defu ko lu bon lu ñaaw violé ko agressé ko jëlul alalam donc man je me pose la question chaque jour saa yu ma yeewoo la pourquoi ñoo ngi koy gérer bon le premier jour dama ko rawale woon yóbbu woon ko sama benn kër xarit mu toog foofu ak décès bi et tout sax parce que ku gis Dieyna ba rek gis Junior ñoom ñaar c'est la même chose kii day di góor kii di jigéen mu yóbbu ko benn kër copain mu nekk foofu xam nga ak fii nu mu meloon et tout ça man tam aussi j'avais pas aussi aw ma woon jot boobu. mu yóbbu woon ko foofu mu nekk fa ba affaire yi jàll loolu ñu dëj ko le lendemain mu ñibbisi bon on a essayé de gérer ma ne ko sa yaay dafa dem Mali parce que xamoon na ni que yaayam da am tendance di dem Mali di jënd ay ay bagages et tout ça ma ne ko sa yaay dafa dem Mali mais bon cette fois si xam naa dina xaw a yàgg tuuti donc après mu muñ ko après soo toogee tamit aussi en tant que parent nga xam ne kii sa nawle la. doo ko mën fenn après ci laa ne ko xaaral kii il faut ma jug ci moom foo ma affronter ko benn vendredi ci laa jug rek mu wàcc ma ànd ak moom armeria ànd ak moom yoof tàgguma kenn parce que sama responsabilité la man dama moom yoof ñu taxaw nii buñ taxawee nii ma ne ko maa ngi la doon wax sa yaay dafa dem Mali mais demul elle quitté pour une bonne fois moo ngi nii tëdd mu ne ah ma ne ko waaw mu ne ma léegi nag ma ne ko ah nañ ko ñaanal ci lañ toog ñu ñaanal ko lu yàgg ñu toog fa ay trente minutes quarante cinq minutes après ci lañ ci lañ ñibbisi chaque vendredi nag dañu am coutume boobu noonu di ko def quoi chaque vendredi dañuy dem di dem des fois nag bon moom moo ngi koy gérer parce que xale la am na ay moromam moo ngi épanouiru et tout sax des fois sax damay dama koy téye pour du dem parce que dama koy gis tellement que nu muy foowee ak ay moromam du ma bëgg yàq ambiance boobu dañuy dañuy après dañuy mujjee damay mujjee man ma dem man ma bàyyi ko. waaw des fois mu tëbal ak moom quoi mais man chaque vendredi man maa ngi fa. loo xamante ni nii munu ma ko munu ma ko créer sama bopp munu koo ko munu ma ko wàccu ah munu ko tuur ndox munu ma ko defal sama sama jëmm ji mais moom moo ma ko jox moom mi jox ma ko nag chaque jour chaque instant. loolu kaddu boobu la ma defaral ba muy dem génn àdduna. jërëjëf euh, muy lu doy waar euh, génn àdduna bàyyi la ak doom xale bu ndaw euh, mu lay laaj ci an sama yaay doo xam loo koy tontu muy loo xam ne comme ni nga ko waxee rek dund na lu metti ak doomam. effectivement. Mhm. léegi loolu ba mu amee ñu xëy man a Pamaha ñu dem hôpital Dantec ak sama yeneen frères yu fi nekkoon ñu ñëpp ñu dem foofu. bu ñu demee Dantec instant boobu mënuñu woon gis koor bi. <laughs> Pam Maxa yéen ñaar ay xarit ngeen. ay xarit lañ tamit waaw bu ñu nekkee xarit ba léegi ay jumeaux la ñuy semaine ngeen magante. effectivement euh, mu dëkk en face. suñu kër sa sœur nga yëkkati ko may ko ko mu doon sëy ak moom. effectivement uh-huh, noonu la fa uh-huh. demee noonu la fa demee. léegi loolu bu mu amee ñu dem foofu bu ñu demee man ak moom ñëpp dañoo neutre. Uh-huh. parce que daa am lu xew am na yoo xam ne mënuñu wax lépp. dëgg la dañoo egg Dantec am lu ñu gis rek. man a moom yëpp ñu ñooy tër. Mhm. que am na ñu ñu ñu fa njëkkoon di lijjanti papier yi. Mhm. autopsie wi ñoo xam ne boo bokkuñu ci famille bi. Mhm. loolu ba mu amee jeena ba benn mag bu mu am muy maha eh, maha la tudd kooku tamit. actuellement dafa voyager ku mu bokk ndey baay. kooku mu ngi fa boobu. après man loolu bu mu amee may jàng action parce que ni soo ñëwee da ngay da ngay jàng action ba pare. Mhm. après si laa woowee Magu jeena ba sama eh, frère boobu Maha boobu bokku la jëkkëram bi may wax. Mhm. ba ma ko woowee ma ne ko ba eh, Maha kee yor papier di def nii di dugg a jéen kii mooy kan mu ne ma kii mooy diw. Mhm. ma ne ko ah kii mooy diw ma ne ko ah damay dégg turam rek maa ngi koy soor a gis. loolu ba mu amee tamit ñu dem foofu jotuñoo lijjanti dara kooku moo mujjee fay sax <coughs> autopsie yi si xaalisam. Mhm. affaire yooyu bu ñu ñëwee fii ñu toog réunion suñu paa yi ñëw ñu ne kam moo yor dossier bi ma expliqué leen ñu ne ma Moussa jugal jël dossier bi en main. Mhm. parce que sa deret la mënoo leen bàyyi keneen yor dossier bi. keneen yor dossier mhm. si laa jëlee dossier bi mën a diw en main. jug nag commencé. di dugg a génn maanaam moom jëkkëram bii nii muy pamaxa mhm. est jëkkëram ku mu amal doom macha allah dama koy sant di ko gërëm mhm. su dul woon moom sax peut-être jour bu ñu denc néew bi duñ ko mun a denc parce que certificat d'animation bi ñu ngi koy lijjanti samedi samedi ñëpp xam nañ ne mairie du liggéey. Mhm. mais à de moom mii nga xam ne mooy est jëkkëram. moo jël moto moo jël affaire am fu ma nee ñu dem ñu dem. Mhm. muy ba Pikine ba mhm. mujjee maa dem nañ Tivaouane Peulh dellu si aller retour. pour rek mun kaa rob dimanche bi parce que instant yooyu média yëpp a ngi xaar lënd bi. di programmer pour rob ko lundi. léegi ñun ñu bëgg leen def. surprise jiitu leen mais taxul dimanche bi fii feesoon na média ñëwoon nañ. kon maa ngi ko si sant moom mi nga xam ne mooy esti jëkkëram mu Mahat taxaw na taxawaayam loolu ba mu amee ñu lijjanti yëpp ba ñu lijjantee papier yi ba jour bi nga xam ne war nañ récupérer néew bi mhm. si laa wootee fii kër ga ma ne ne ah néew bi dina ñëw tey incha allah ñu ne ma si naka loolu mu ngi tombé samedi vers de quinze heures di sept mhm. ma ne néew bi dinañ ko indi suba ñu rob ko wax leen ko suñu maire eh, maire yi sang néew. Mm-hmm. pour ñu waajal ko. Mm-hmm. parce que gars ñëpp yaa boobu nga xam ne moo ko yar. Mm-hmm. Euh, ginnaaw bi mu amee ñetti at. ci la waajuram bu jigéen génn àdduna. fële ca Mali. Euh, ñu daal di koy indi jox ko bàjjanam. Euh, teg ko ci loxo mu yar ko ba ni mu màggee ba ni mu amee borom kër. nekk ci kër gi ba tax na dañuy dem seetaani moom it euh, naka la dundee li nga xam ne rek euh, mooy euh, génn àdduna doom bi ci condition yu doy waar yi. waa sama doom bi jàmm ak salaam ak sama man moom sama doom bi baax na ci man lu ma bëgg loolu lay defal sama mat matelas mu ngi ci sama ne moo ma ko jox mu ngi doon liggéey soo amee dara mu jox ma soo amul dara mu wax bañan amul nii la am de bajaan looy soxla yëkkati cinq walla wala yëkkati ay ñaari junni jox ma loolu rek la dund man ak sama doom bi jàmm ak salaam mhm. lu ma wax loolu lay defar mhm. liy jékki-jékki li am ba tey maa ngi jaaxal xale bi lu ko dal yéegu ko kan moo ko def yéegu ma ko ba tey dama toore ñu wax ma nee kii dafa réer ma ne ko déedéet kay moom ñëw na fii samir ba ma wax ak moom dimanche bi mooy lundi jour lundi bu ñu yàq noonu ba ñu rey ko rek laa après ma wax ko ah kii ñëwoon na fii de du fekk na dafa yor ay mbeew sax mbeew mbeew la yor woon mu ànd ak doom bi mu yor cinq mbeew mais mbeew poti mu teg ko sama laat nee na bajan mbeew yaa ngi ni après da nga ñaari nga tee ko su fekk Amadou mu ngi ñibbi ci papam nga jox ko Amadou mu ngi yóbbaale kër ga mu ngi foo ci kër ga fii ak xale yi mais ci kanam xam naa yëfu xale la day ñibbi mhm. ma tee mbéy yooyu après xale bi mu ngi ñibbi ma yëkkati mbéy bi ma jox ko jox naa ko bara moom dem sa moom jox na morom yi ñu kii ko après ñu bokk mu bokk moom bokk ak morom yi ñu lekk ko mhm. loolu laa ko gëyee gis mhm. waaw wante lu rafet la ñoo ci man ah après sama doom bu góor mu woo ma nee na ah kii jóg na fii lundi bi dimanche bi nee na dégg naa dafa de di dem mu ne ko eh sama doom mag bu tonni moo rëy mbaa wooyu ñu ngi ko jàpp def ko dara ci feneen mu ne ko mag bu jot munu kii de munu rëy de affaire bi ma metti ma xëy ma dem Dakar bi ma ñëw ma dugg magasin bi maa ngi jënd dulli ci sey ma jënd ba pare sama doom bu góor bi woo ma nee na ah, sama yaay mu ko naa mu ne ah, nee na Dieynaba Traoré fay na mu ne ko alhamdulilah rabbil alamin maanaam maa ngi sant kon mu ne fay na mu ne ko baa ñëw na kër gi moom nee na déedéet ñëwagul de après mu naxal ma dàng nee na fay na mais gis ñu ko ak bak bakkam nee na de ngoor yi nee na mu ngi hôpital bagage bi ma yor woon yëpp dafa wàddu ci suuf man daa di yuuku man daa di yuuku man nag dàng dox dàng dàng ma ñëw dugg ci kër gi dama foo suma ma too ma woo keneen mun ma too man maa ngi yuugu di dugg waa kër yi yëpp commencé di yuugu loolu ba tey affaire bi dafa ma metti su ma xarati affaire lii neexul de metti na ma metti na ma ku ko defu ni maa ngi ñaan yàlla ñu yëpp ay julliti la ku ko def nii yàlla na yàlla ko liir sama set bi su ma ko gisee dama koy ñaan rek ma ne ko ku def nii bàyyi lii benn bant bi bàyyi nii ku ko defu ni yàlla na ko yàlla fay loolu laa lay xool xale bi yenn saa su ma xool xale bi sama xol day tàng mais après ma xool yàlla ñu yëpp foofu la dem kenn desul fii mais li mu demee loolu dem bi mooy baaxu doo xaj ni ni rëy sànni mu sa sa doom mu sànni ko mu nii ba tey kenn xamul ku ko defu loolu mooy metti vraiment mu metti nañu metti nañu de mais doo ko mun faju su mbur rek moo ko mun faju ak yéen mii ñoom fi yéen yi wan na yàlla yéen dimbal dimbal lañ ci loon jërëjëf euh, kon nag euh, metti na olof bi setul waaye mm. nag euh, jéngu na ko mm. ni mu waxee boo ko déggee xam ne. am na lu ne ci xolam loo xam ne jafe na ko mu wàcc. effectivement nga yar sa doom ba mu amee ñetti at mu daa ñu teg ko sa loxo yaayam génn àdduna euh, ngay ñaan mu màgg ba teral la mu màgg mënal la ah, nekk battante di liggéey comme ni ko borom këram waxee euh, ñu boom ko ci anam yu doy waar yi. waaw metti na lool metti na ma leen di yokkal foofu bàjjenam lu mu bëggoon wax muy sama yaay bi rek. lu mu mm-hmm. doon wax xam nga olofam leerul. dëgg la parce que affaire ba mu amee dégg nañ façon rumeur bu nekk. Mm-hmm. rumeur bu rafet bu ñaaw lu nekk médias yi ñëpp xam nañ nu mu fa demee. Mhm. kër bi suñu kër papa la kër famille la sama papa mu ngi amoon ñeenti soxna. Mhm. kër bi soo xoolee si kaw ba si suuf amul locataire yëpp famille bi la ay sët sëtaat ay sëtaati sët. Mhm. magasin rek ñoo fii local. kon euh, ci loolu yaa ngi bëgg a leeral ne euh, maanaam sëy na ba tas. Mhm. Euh, dellu si kër bàjjanam maanaam espace problème espace moo tax mu jóge ci bàjjanam. loolu kese mais du par exemple yenn saa ni ñuy déggee kii am na studio wala dara. mu génn àdduna der di ci ñaaw. merci mhm. loolu kese la du leneen parce que kër bi yéen xam ngeen gis ngeen kër bi nu mu toll. Mhm. guddi soo leen fi ñëwee Chine populaire lañ koy woowee macha allah sant yàlla kon. loolu moo tax mu génn kër bi parce que neexul ngay liggéey chaque jour ñu sàcc say dàll wala sàcc sa alal loolu ñun am nañ si preuve am xam nañ si lu leer nañ loolu moo ko poussé mu dem jëllee di fay mais taxul ne chaque jour dafay ñëw day ñëw ci bàjjanam day ñëw fii mhm. day ñëw waxtaane ancien si jëkkëram jël doomam dem continuer business am mhm. kon loolu la pour ma leeral nit yi ñu xam côté lool côté boobu tamit mhm. yàlla def na bu ñu jotee papier yi bu ñu demee Dantec yàlla na ko yàlla yërëm man fan laa xawee gëm ne moom la. bu ñu demee xëcc trois man maa xëcc kii bi major ba mu taxawee maa ngi taxaw kii moo ngi taxaw papa moo ngi taxaw ñu xëcc trois bi génnee ko. mu congelé ñu muur ko benn sachet. major bi nee ma naa dem jënd fee dérap. 2000 lañ koy jaayee instant yooyu yoruma xaalis sax papa moo ma jox 2000 francs mm. rek ma daw dem si ginnaaw dante bi noonu jënd dara bu weex tàll fekk ay sa jëkkëram ma koy santaat mm-hmm. fekk woo na corbia parcelle bi mm-hmm. ma koy santaat maanaam taxaw leen daal taxaw nañu cent pour cent macha allah wallaay azimi loolu moom taxaw nañu 100 pour cent loolu ba mu amee. yow Moussa naka nga dundee loolu sa cousine nekk sa sa complice mën naa ko waxee noonu. Mhm. ndax nag yéen ñaam miinante woon ngeen liggéey ngeen pendant des années nga tiim ko ni inerte ñu. ba buñ ko xëccee major ba mu ko jénnee man avant maa réaliser dama ñëkk toog si suuf si morgu Dantec bi dama toog si suuf te sama bopp. Mhm. que lu ñu doon wax yëpp ak lu ma doon daw di lijjanti papier yëpp gëmuma ko woon. goow moo ko woon de. Mhm. maa ngi daw lijjanti papier certificat d' élimination lu nekk dugg nañ fa ba samedi monsieur le maire bu nekk maire bu nekk Pikine. Mhm. ñoo ngi koy sant tam di ko gërëm. Mhm. parce que foofu am na compréhension bi nga xam ne suur jouru ñu expliqué ko kaabi mu jénn këram gaa yi woo ko mu ñëw defaral ñu certificat d' animation ñoo ngi koy sant di ko gërëm. samedi boobu man a kii ñoo àndoon tête à tête. léegi nag loolu bu mu amee man bu ñu jénnee bu ñu ko ubbiwee muy xool ko ak nu mu glacé gis blessure yi dama toog si suuf te sama bopp si la sama xel soor a ñëwee ma ne kon gaa yi lu ñu doon wax semaines yi yëpp dégg la moom la affaire pour touché ma lo touché ma mais damay gëm yàlla mënoon a nekk man sax on sait jamais moo tax ñaan mujj bu rafet rek moo jara ñaan loolu ba mu amee ñu jénnee ko ma dem jënd dara bi ñëw bu weex bi 2000 francs ñu ñoo ko téye nii ñu lëmës ko buñ ko lëmësee fekk woote naa kër ga tamit eh, woo woo waa kër ga ma ne leen koor baa ngi ñëw nañ préparé. Mhm. ñu dugal ko si kees bi buñ ko dugalee si kees bi ñu téye ko eh, dugal ko si corbia bi indi ko si suñu jumaa unité bi bañ ko indee foofu tamit après dimanche bi si lañ ko waajalee nu mu gën a rafetee. Euh, dem yóbbu ko mhm. avant ñu koy yóbbu tamit ñu xam ne sama rakk bi avant ñuy jël bakkenam xeex na mhm. parce que soo xoolee koor bi rek dafay xeex ba loxoom dafa lemu mhm. maanaam ku doon dóorante xeex si koor bi loxo bi dafa lemu fii yëpp xonq xamoo ko xees rek bu jotee ay coups merci te moom bañkat la woon góor du ko yàpp ñàkkul fayda neexuto ñame mhm. parce que boppam la gëm xamoon ni soo gëmee sa bopp doo neex a ñame doo neex a ñame pare dafa ouverte mhm. amalul kenn problème nit day sol yére bu rafet léegi léegi nit ñoo nee na jeene ba wala tene sa li rafet na de wallaahi mu yëkkati jox la ko mhm. euh, ba tax na sax euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy témoignage yi ba tey ay sëram ñoom it naka lañ ko dundee xeex na ba dee ñëpp benn wax bi la euh, ba tax na ñu dem déglu leen ñoom it euh, ñu daal di ci àddu ak naka lañ ko dundee mu metti lool lool ba euh, Dieynaba Traoré muy teneng ñu dem xoole témoignage yi dellu léegi lu mu daan defal yaayam chaque année te ne mën a laax lay teg saraxal yaayam mu nekk barsak tey kooku kan mu ko koy defara doomam bëggoon doom gis nga junior su ma ko gisee sama yaram day daw anniversaire am ñëppay xam ne junior day anniversaire ay ay pizza ay ceek la koy commander fii la koy defee fii woo xale yëpp solool xale yi xam nga xale yi dañoo bëgg ay accoutrement brillant brillant yi ak mbaxane yi ak masque yi xale bu nekk dina la defal famille fu mu nekk dina la woo fu buggoon famille junior sept ans la am te affaire bi amagul deux ans te takkoon te damay dégg ñu naan junior bu gisee ku xees kuy dem sax danaan tene bu gisee ko xees style yaayam rek day wax tene parce que xam nga nit di nga jur sa doom divorce papa mu ngi koy toppatoo doo ko toppatoo lijjantiwoo ko dafa namoon ci doom gis nga fasilul de nga divorce ak nit ngeen am relation amicale mais kii gis nga seen caniveau familial fa lañ ko denc kii moo ko wàccee ci biir bàmmeel jeene ba bu nekkoon ku bon kii loolu du ko saf du ko lijjë danaa boo débara damay récupérer sama doom mais am na lu mu dund moom am na lu mu ko xam loo xam ñun nii xamuñu ko parce que ñoom ñoo doon sëy boo gisee relation boobu am ba tene décédé mu ànd ak samay frère di lijjante papier lu ne daj na ko ak famille am ba ñu jot ci koor bi de yu ñun permission pour ñoom ñu denc ko seen caniveau familial am na am na lu mu liggéey ci kër googu gorom bu góor dafa toog di jooy ne tene fóotal na ma te ne passé ci xale yi jamono jii nii lu ne def na ko ci kër gi mais sëy nag yàlla moo koy jeexal métti nañu de métti nañu trop trop trop trop dañuy ñaan na yàlla rek lii ku ko def yàlla na ko yàlla nii fu ma julli dama koy ñaan damay naafila sax ndax loolu te day feeñ de xëy nañu ñoo yàqamti mais yàlla du yàqamti fii kenn amul doole yàlla rek am doole bis bu soobee yàlla seconde du ci tegu day feeñ jërëjëf euh, yaa ngi woon euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy maanaam côté social. côté social laa lay expliquer mm-hmm. sama jour mariage bii nii sax si jëmu boppam. ñu mm-hmm. bëriñ fa même vidéo bi soo ko tegee da ngay gis ñu bëri yére bu ñu sol nga ne diw rafet na mu ne jeenew moo ma ko jox. Mm-hmm. vidéo yaa ngi fi ni ay yére yoo xam ne yére yu cher ñu ma xam ay jigéen yére yu bëri moo leen di jox ne am sol leen ñëw. kon nga xam ne kooku. àdduna nekkul woon. dara moom à part euh, euh, commerce bi am na ci leneen lu mu doon yëngu da doon dëngu ci couture wala. waaw si ay euh, pose ongle ah, comme jëkkëram mooy joor mhm. ak yëre dafa doon mhm. jaay yëre mhm. waaw parce que ba mu laaxoo tamit bu ñu demee fee chambre am yére yu bees yi bagage yëpp fii la nekkoon bu ñu demee récupérer kii yëpp fii lañ nekkoon léegi léegi yëf yi bi mu amee ngeen denc ko le dimanche waaw non le ngeen denc lañ mujjee denc bu ñu dencee ñu commencé topp enquête bi noonu fekk gendarmerie Kër Massar bi moo yoroon enquête bi commandant bu fa nekkoon ñu mujjee ko affecté indi ko fii brigade de recherche bi nga xam ne moo nekk fédère ba mhm. loolu ba mu amee comme ñun Dakar la ñuy liggéeyee tamit Dakar la nekk day voyager di dem ak ñëw ñu xam ne foofu moo ñu gën a jege parce que man maa ngi sax damay jénn rek egg brigade ba mhm. euh, ba mu amee chaque semaine même su fekkee sax semaine la dinañ fa dem benn yoon man a papam dinañ fa ànd parfois ak fereeram parce que fereeram bi tam day voyager mhm. loolu bu mu amee ñu topp enquête bi di dem ñëw dem ñëw saa yu ñu demee lu ñuy ne ñoo ngi ci enquête bi mais bi lu mu wone au début jàppoon nañ si ay vigile ay vigile jàppoon nañ ko ci parce que parce euh, nañ ci weyu béy ne euh, yëf yi bi muy am Euh, gis nañ ko euh, am na caméra yoo xam ne am na ay information yoo xam ne am ngeen ko ci effectivement muy yaatoo yaatu mhm. ndax mun nga ñu ñëwal ci yooyu waaw parce que affaire bu mu amee tamit euh, lu ñu gën a yéeme rek benn portable ñaari portable la jono iPhone onze bi ak l'autre simple bi mhm. benn iPhone bi fii lañ ko foree Grand Yoff beneen eh, benn portable simple bi Grand Yoff lañ ko foree deuxième portable bi ñoo ngi koy foree Maris koor bi mu feeñee Tiwaawan Pël te moom fii la logé woon Ouest Foire mhm. loolu ba mu amee nag ñu ñu nee nii ba ñu demee man wan nañ ma visile bi mooy gendarmerie Kër Massar dem naa ba après gars yi ubbi yóbbu ma ba si giri bi man a papam non fekk papam ñëwagul woon parce que papam période boobu daa voyagé woon papam mhm. damaa jox ko eh, eh, kii la ne naa lijjanti lépp jour bu may pare lijjanti papier yi la papam ñëw pama xam na lu may wax jour boobu. Mm. ñu ne il faut papam dëggantaan ñëw ñu mun ñëw jox papier yi nga xam ne dinga koy dem rob. Mm-hmm. yàlla tombe jour boobu samedi boobu tamit la papam egg Dakar papam daa egg rek woo ma ma ne ko fekk ma gendarmerie Kër Massar mu fekk ñu foofu automatiquement léegi ba ñu dajee foofu man moom Pamaha ñu kii ñu dem gendarmerie Kër Massar gars yi enquête ko moom tamit. soo ñoo jox papier bi nga xam ne moom lañ koy mun a robee samdi bi. Mhm. si lañ dawee dem ba kër mairie bi ñu defar ñu. Euh, certificat de mhm. kon loolu ba mu amee tamit léegi nag après si lañ kiiwee euh, jëlee koor bi bu ñu jëlee corps bi nag bu ñu demee lijjanti papier yi si lañ demee danteek majeur bi après ñu am suñu corps dem rob comme nu ma ko waxee rek. Mhm. loolu daal. instant yi daal foofu lañu yemoon mais après ñu dem si enquête bi chaque jour ñuy dem. Mhm. suñu demee gars yi wax ñu dara ñu ñëwaat noonu xam nga mhm. enquête parfois doo mun a wax lépp. Mhm. ba denee maman lan lañ jot a am si enquête bi. Euh, dem nañ si commandant buñ ko euh, trans affecté fii nii nii. fédère fédère bi. war nañ ñu vidéo yi nga xam ne jay na ba am na copinam yu mu àndaloon. am na copinam yu mu àndaloon fekk mooy hôtel teeru bi xam moom dafa bëgg affaire liste non sudul mm-hmm. dara sax même fii day xëra jëni jinaa jox famille bi yëpp wala mm-hmm. jël xale yóbbu lay sumba juum dem ànd ak copinam mm-hmm. lool viwam la loolu kenn mënu si dara léegi nag bu ñu demee naa bi woon ñu ne enquête baa ngi avancé ñu ne ko enquête baa ngi avancé ñun chaque jour suñu ñëwee même parole ngeen ñuy wax fekk période boobu ñoom ñoo yoroon portable yi ñu ne daa am lu ñu si recherche ñu yóbbu portable am iPhone bi. Sonatel ay bi def na si ñoom presque un an mënuñu jot dara ñu ne enquête la ñuy def. loolu ba mu amee benn bës mën a paa bi e, dem foofu si commandant bi ba ñu fa demee si la ñu commandant bi wax ñu enquête fu mu toll exactement. Mhm. ñu won ñu Dieynaba ba muy génn hôtel teeru bi jour bu muy réer. xam nga hôtel teeru bi ñëpp xam nañ ne am na ay caméra yu nekk si mbedd bi même Dakar nii sax mhm. mu jénn ba mu jénnee mu taxaw nekk ci digg bi ak ñaari copinam ñaari copinam yooyu tamit si lu ñu gis image yi ñu taxaw c'était une di du matin ay une heure quarante trois une quarante quatre ay seconde moo manqué mu egg une heure quarante quatre mhm. copinam yooyu arrêté benn taxi ñoom ñaar ñu dugg dem bàyyi ko fa mu taxaw moom kese si image yi ba léegi ba mu taxawee même pas cinq minutes mu am benn 4x4 bi nga xam ne mu ngi jógee côté ville di ñëw ñëpp xam nañ ne soo nekkee dante côté bee lay féete mhm. oto yu jógee ville il faut nga jéegi tali nga jéegi tali bi. automatiquement moom jeene ba seen na 4x4 bi mu ne nii moo ko stoppé yuuxu si caméra bi. Mhm. maanaam mais ni koy yuuxu. Mhm. oto bi egg si moom oto bi avancé woon na tuuti sax après oto bi arrière. taxaw mu daw jéegi tali ba mu jégee tali mu dugal boppam si oto bi rek ubbi oto bi daal di dugg. ba mu duggee oto bi dem. si image yi lépp lu ñu gis benn ñaar chiffre lañ jàpp si oto bi lu si des yëpp dafa fulu. ci lan la matricule bi oto bi. Mhm. dafa fulu. Mhm. oto bi jël yoonu corniche ba noonu. gars di ko topp caméra bi. topp na ko ba egg l'autre la comment il s'appelle pont 23 bi nii. Mhm. caméra bi topp na ko ba foofu foofu la ñu réeree mais loolu yëpp guddi la woon mat eh, matricule oto bi. jotuta feeñ noonu. jotuta feeñ gars ñaari chiffre dañ si jot a génnee. Mhm. ba commandant bi nee nañu ñoom vidéo yi jël nañ ko yóbbu nañ ko extérieur yóbbu nañ ko fu sori. pour mhm. woo nañ ay. kàngam mhm. ay expert pour ñoo jéem a kii mais si lañ toll. commandant bi expliqué ñu ne ñoom bu ñu demee service mille bu ñu xoolee nombre oto yi nga xam ne mooy Vitara bu mel noonu même couleur gris c'était mille et quelque Vitara ñoo fi am. si enquête bi lii yëpp ci enquête mille et quelques léegi il faut ñu woowoon ñooñu ñëpp entamé nañ benn benn pour mun a xam mhm. affaire bi fu mu tollu mhm. ñun foofu lañu mujjee si enquête bi saa yu ñu demee actuellement loolu la ñuy wax mais delloo nañu portable am delloo nañu bagage am yëpp yi nga xam ne buñ koy rey cheveux yu mu takkoon chaîne oram iPhone am. ah maanaam kon biñ ko boomee amul lenn loo xam ne day wane ne agression la wala nangu ay bien ak yooyu. amul bañ léppam lañ ko delloo. lépp. Mhm. mais daal rey bi moo ñaaw ay xottu butéel fii baata macha allah yal na yàlla musal rek mais mhm. daal neexut a wax. Mm-hmm. rey bi anam bi ñaaw na trop trop trop trop. dañ ko jam jam waaw ñaaw na trop trop trop wallahi azim. Mm-hmm. loolu même su fekkee mala la sax ñu ko reyee noonu. Mm-hmm. sànkatuma laa doomu aadama. doomu loolu daal bokk na si loo xam ne gën na ma metti saa yu ma ko xalaatee. parce que xam nga lan xalaat kii ku ko doon def lii pourquoi fekkuma fa man. pourquoi at fan nekkoon at pourquoi. man loolu moom ma metti kon. instant yi loolu la jot a xam ci enquête bi nga ci euh, ay morom ba tax na say sœur tamit euh, ñoom it ci ak euh, sa frère muy mhm. seen taaw ñu dem seetaan di des ci témoignage yi laataa ñu ñëw ak ki nga xam ne rek mooy Moussa ci li nga xam ne rek moo waral waxtaan bi tey ñaari affaire moo am ku muy génneel da koo dóor gaañ ko teg ko fenn wala mu dóor ko rey ko sànni ko man ñaar yooyu laa gis ma tenn du réer mais xam nga dañ ko rey. waaw ko xam nañ ko. teg seen tànk mais da nga war a xam ne dee am na. enquête bi ça a été négligé quoi parce que gis nga ni temps Sénégal ñun xam nañu fii suñu justice Sénégal ils sont forts et efficaces par rapport ak euh, Afrique de l'Ouest bi fu bëri mais lu bëri lu mel nii lu ko gën a garaaw am na fi. amul sax ay preuves yu gra yu bëri mais dañ leen retrouver parce que moi je si suis dit que ñooñu dañ leen bëgg a moo tax ñu retrouver leen Dieynaba soo xoolee Kaam Kaam c'est critique mais c'est louche c'est trop trop louche parce que euh, dañ fa dañ fa dañ fa accueil euh, preuve yu bëri preuve yu bëri yu nga xam ne war na mën a le coupable war na ko mën a feeñal mais soo seetee au fond dañ si teg seen tànk ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo yokk yor enquête bi il en fait quelque chose dañ si teg seen tànk ma lan moo tax nag mais loolu man c'est c'est moo ma gën a sonal quoi man damay toog billaahi fu ma mënta dugg fu ma mënta nekk ba si biir waañ sax su ma fa duggee damay jékki-jékki rek xool benn affaire rek su ma xel ñoo si ndaw si billaahi daf may frappé loolu laay xalaat foofu di imaginer kii nan la ñu jëlee bakkanam parce que nu ñu ko retrouver c'est c'est trop c'est trop je ne pas dafa ñaaw dañ ko retrouver retrouvaille bu nga xam ne dafa ñaaw jël doomu aadama sànni ko si àll fu nga xam ne xam nga kenn nekku fa suñ ko gis loon rabu àll yi ñoo ko doon jeexal a ñu toll si noonu mais sànni nañu ko xam nga pour nga dem xool ko sax sa yaram day daw ndax yaram bi yëpp lañ bët yaram bi yëpp lañ bët doo comprendre nii lan lañ bëggoon si si ba xam nga dafa metti man suma ma xel mënul denc si moom quoi à la kulli àll en tant que man gis ma coupable ba dama koy imaginer façon nit bu nekk ñooy ñëw taxaw suma kanam nag ma ne est-ce façon nit kii la est que xam nga loolu c'est pas tamit neex neexul quoi. dafa métti neexul. jërëjëf euh, Moussa euh, seen taaw moom it àdduna. Mhm. say sœur mhm. euh, ku ci nekk am nga lu la métti comme ma xam mi nga xam ne rek mooy ex jëkkëram. Mhm. waaye nekk papu doomam waaye nekk tamit xaritam. ndax suñu borom jeexal na seen diggante mais teewul am nañu complicité boo xam ne macha allah ma bàyyi la rek nga daal di ñuy wax ci témoignage yi. waaw bon comme ni nga ko waxee rek maxa boobu tamit. tey suñu demoon yoof ma woon la fu ñu ko denc si mhm. turandoowam nii ñoom ñaar at meilleur ami wam mhm. moom moo ñu jox fu ñu ko denc moom laa laaj moom moom es si jëkkëram parce que mhm. daa am lu tax en personne waxuma ko mais papam bi ba ñëwee papam ñëw na ba fii ñu toog mu ne ma Moussa ma ne ko waaw mu ne ah Pape Maha moom chaque àjjuma chaque semaine day dem foofu lañ ko denc collègue am la expliqué ma kaa bi su ma sañoon ngeen denc ko su fekkee foofu am na place Pa Maha waxuma dara. papa mhm. moo ma wax lii. Mhm. mu ne Maha si boppam waxuma dara te effectivement man Maha waxuma dara. Mhm. mu ne ma ni su fekkee foofu am na place ngeen denc ko parce que. moom chaque semaine dafay dem def ko ñaanal. ma ne ko incha allah dinaa xool nu muy demee yàlla def dimanche bi balaa ñu koy rob fekk jox nañ gars yi rendez-vous 11 dañ koy rob dimanche 8h ma ñëw taxaw fii rek woo ko mu wàcc ma ne ko nañ dem yoof moom pambaxam yi nga xam ne mooy est jëkkëram bu ñu demee yoof euh, ñu dem ñii di gas ñu ma jox leen papier yi affaire yooyu si laa ko laajee ma ne ko pambaxam mu ne ma waa ma ne ko yow daa am kum ki nga xam ne ku la jege la mu expliqué ma automatiquement laa waxee gaskat yi est-ce que xam nga foofu mu ne ma waa ma nañ dem ñu xool foofu mhm. su fekkee ne am na place ñu denc ko foofu ma ne ko parce que tey yaa ñu ko gën a yelloo parce que mhm. su dul dara am ngeen benn doom mhm. loolu ba mu amee gaskat yi ñu dem mu won ma foofu ñu xool gas eh, ñii di gas ñoom ñu gas gas gas xool xool ñu gis ne fii amul kenn ma ne leen kon baax na nañ ko denc fii mm-hmm. après si laa ne gaskat yi nañ ko gas ñu gas ko ma ne leen onze heures ñoo ngi indi koor bi si lañ delloo mën a pamaxa ñu ñëw fii nii après gars yi waajal ñu jullee ko ànd suñu mbokk yi ñu yóbbu ko ñu denc ko bërëb boobu ba tey nii foofu la de tëdd moom mi nga xam ne moom moom mooy sa jëkkëram sax moom moo ko mujjee def clôture lépp tout mhm. macha euh, allah tey jii euh, boo gisee doomam bi nga xam ne rek euh, moom la fi bàyyi juróomi at la amoon bi way juróom bu jigéen di gaañu Euh, way juróom bu jigéen aussi euh, bi euh, way juróom bu jigéen di gaañu muy maamu xale bi mhm. ñetti at la am mhm. daanaka ñoo bokk même destin boo ko xoolee tey jii muy sa jabaat lan nga yëg bon affaire bi man xam nga fii man sama néeg yaa ngi gis xale yaa ngi la toog mhm. soo leen fi nekk woon ñëpp xam nañ ko fii mooy xale yi fii la ñu amee lépp suñu ñëwee mi la ñuy teg sama yoon sama soxna mënu si dara man mënuma si dara nitu mhm. xale yi laa mhm. ñoom ñëpp fii ba si si ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw léegi nga gis la ñu fees fee laay toog su ma liggéeyul tëdd bàyyi leen fii wala ma jéem dem bon loolu man ba léegi li ñuy wax franchement parler ba léegi man mënuma ko gëm sax mhm. malgré que suul naa ko dem naa ko denc mais ba léegi gëwuma ko oo foo ne jeene ba tene mi nga xam ne mooy sama rakk ñu doon nekk fii nekk def lépp tout moom moo moom moo nekk fee tëdd tey mënuma ko gëm ba tey nii wallahi azimi mhm. mais après damay delloo waar sama xel la xam ne mbiru yàlla la ñu ñëpp fii la ñuy mujj quoi mhm. di ko ñaanal rek na ko yàlla yërëm di wax ne junior macha allah yal na ko yàlla may gudd fan ak wërgu yaram mhm. gudd fan nga xam ne yaayam maamam amuñu ko yal na ko yàlla jox doom bi incha allah te dina am Mhm. parce que jeene ba parcours yaayam la jël rek fii la juddoo plateau Escarfe la juddoo mhm. parce que yaayam foofu la nekkoon ak papam ñoom ñëpp beneen magam bi fii lañ ko ñeentee si biir kër bi mais moom jeene ba weeru koor la juddu mhm. je me rappelle bien si weeru koor bi la juddu ñu ñeentee ko fii hôpital principal ñu ñeentee ko Escarfe rue Escarfe nga ñëw xool ne yaayam dafa demoon vacances si Mali rek ba ma ko rek far gaañu fa. gaañu fa infraction. Mhm. fekk jeene ba mu nekk xale bu ndaw. sama tànt bi si la demee ñu joxaale ko indi ko fekk sama papa mu dund. Mhm. ñu ne nañ ko yar après ñu may ko sama benn doomu papa. Mhm. ñun ñoo ko waroon takk suñuy cousine la suñuy jabar la. foofu nga jox ko sa xarit. waaw kay mais xam nga xale yi kenn mënu leen forcer. <laughs> xale yi kenn mënu leen forcer suñu ñëwee ba bëgganteen nit ki rek da leen di bàyyi ak seen seen seen eh, objectif foofu sinon après di nga siy am lu la neexul. Mhm. Euh, kon tey jii mhm. euh, yow yaa topp enquête bi ba tey ak papam ba tey man maa mhm. koy topp nii ba démb laa mujjee déggante papa ma ne na waajal semaine prochaine ñu dem fa mu ne ma amul benn problème avant ngeen ñëw expliqué naa ko papam nee ma ni amul benn problème nu ma ko mën a gérer naa ko gérer noonu nu mu gën a rafetee. loolu lañ leen indiloon tey euh, muy meurtre Dieynaba euh, Traoré euh, ñu gën ko xam ci turu Teneng comme l'appelle Bambara ci muy Badiane tey jii mu nekkoon le 3 juin 2021. 3 juin 2021 mu réeroon euh, ginaaw bu mu amee ñetti fan euh, réer bi euh, ñu jékki-jékki retrouvé ko fële ca Tivaouane Peulh ca Filao ya ñu daal koy boom ci ay anam yu doy waar yoo xam ne mbokkam nee nañu mbokkam yi nee nañu sax bëgguñu ci sori ndax dee bu ñaaw bi nga xam ne rek dee na ko ba tax na nag boobaak léegi enquête baa ngi en cours li ñu bëgg rek mooy ñu gën leen a leeral ñu xam yëf yi fan la jóge ak kan moo boom seen sër ba tax na Moussa dañ lay bàyyi nga tàggoo waaw man moom di leen di sant di mm-hmm. ak ñu seetaan ñëpp di ne rek eh, autorité yi c'est à l'époque affaire ba mu commencé foofu dama kaa fàtte woon ministre de la justice bi nga xam ne moo nekkoon Malick Sall mm-hmm. moo fa nekkoon daan na yónnee délégation sax si mm-hmm. enquête bi moom ministère bi ministre de la jeunesse ñoom woote nañu woon fii sax ba ne dañuy ñëw parce ñoom période boobu ñun saa yu ñu demoon dinañ gis ay éléments yi nga xam ne si ministère de la santé eh, ministère ministre de la jeunesse moo leen yabaloon foofu si enquête bi. tey moom nekku fa ba léegi ñun amaguñu solution kon kan la ñuy mun a wax la ministre de la justice bi nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall. moom la ñuy ñaan ginnaaw yàlla comme moo fi nekkal askan bi si affaire droit suñu rakk bi nga xam ne bëm nañ ko ci bëm bi nga xam ne. jéggi na ñaaw na ba fu ñaaw yem ñu ko expliquer sax koo bi képp ku ko gisoon di nga jóg mhm. moom la ñuy ñaan yàlla mu moom la ñuy ñaan ginnaaw yàlla mu def effort waxala gaay yi enquête bi nu mu gën a gaawee pour ki nga xam ne moo def jëf lu ñaaw bi mu mun a feeñ mhm. tant que loolu amul ñun suñuy xel du dal tant que amul instant ba léegi nekkaguñu mhm. suñu dëj ba lay defaguñu ko parce que ba léegi ñun ñëpp day travailler suñu mémoire da ngay toog parfois da ngay tëdd sa tëb jug toog ne waa ana tene ana après nga ne non waaw mais est-ce que lii dëgg la dëgg la day mel ni kam day mel ni ay film si ñun ba tey nii kon lan la ñuy ñaan nañ def seen ñoo ngi liggéey nag suñu justice woolu nañ leen mhm. xam nañ ne ne mun nañ liggéey lu ñu bëgg a mu feeñ suñ si taxawee dina feeñ cent pour cent kon di leen ñaanal nañ def effort doomam baa ngi am na sept ans avant moo màgg muy gën a nekk problème wala ay rancune walla kon daal suñu wax du gudd fii lañ ko mën a yemale di leen ni ñaanal yéen ñëpp gudd fan a wër gi yaram mm-hmm. ak képp ki nga xam ne am nga kaabu mel ni yal na ko yàlla sottil yëpp te ñu jéem a xool lu yàlla wax rek ñu def ko mm-hmm. ku rey nañ la rey mm-hmm. loolu su fi amoon kon xam naa ne jàmm jàmm moom dina fi am jërëjëf Moussa Sanogo euh, frère ci Dieynaba Traoré euh, ñu gën ko xam ci turu Teneng euh, mu doonoon ndaw doonoon battante doonoon koo xam ne mi ngi woon doon yëngu ci lépp luy beauté mode na ci li nga xam ne rek mooy jaay ay mélange saabu ay mélange diw ak li nga xam ne rek mooy ay tenue macha allah doonoon battante comme nag ni nga ko waxee rek mu doon koo xam ne ba moon nañ ko le 3 juin 2021 boobaak léegi nag enquête baa ngi en cours li ñuy ñaan mooy mu gën a gaaw ñu gën ci taxaw ndax nag euh, am na doom boo xam ne bi muy desee de mi ngi amoon 5 ans jamono ji xale bi am na 7 ans yëf yi di gën a wéy ba tey kenn mënul wax xale bi sa wayjur bu jigéen lii moo ko rey euh, mu doon loo xam ne lu doy waar la ndax nag euh, mi ngi réer ñetti fan ginnaaw bi ñu ko gisee fële ci euh, Tiwaawoon Pël ci filaawo yi ñu sànni ko fa daal di koy boom ci anam yu doy waar ci yaram bi doo xam ne sax amaana mënuñu cee sori lu bëri bëri waaye nag di wax ne rek lii lañ leen indiloon ñu nekkoon fii ci Parcelles Assainies unité 21 ñëw nag fekk fi la famille ak ki nga xam ne rek mooy ex jëkkëram waaye nekk aussi xaritam ba ni muy euh, génne àdduna vendredi bi sax wax nañu muy yu bëri bëri bëri yoo xam ne xew na ci affaire bi lépp mënuñu ko wax ndax yëf yi dafa nekk en cours enquête la te ñu respecté lool suñu justice su réew ba tax na nag mbokk yi di leen wax ne lii lañ leen indiloon tey ci 7 voix du cœur sur la 7 TV di leen euh, ñaanal bu baax a baax euh, di remercier ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllu cadrage bi euh, kebe Amadou Ndak Kébé ak ki nga xam ne rek mooy Issa yi di jaajëfal waa montage Lamine Mbengue Kouyaté ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo nekk seen ginnaaw waa production fàttewuñu kenn jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon teewlu euh, di leen wax ñu ngi leen di jox dig daje mardi incha allah ak keneen ci li ci xolam fi amaanilaa jaa ngeen jëf merci beaucoup.